عليه خير صلاة بسمته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala wa barakatuhu téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ci jàkkaarloo ak yéen ci seen eh, émission bi ñuy grand débat grand débat rédaction di leen ko amal euh, mën wax euh, ci jamono ju di dëppoo xew-xew yi am ci àdduna moo xam ci actualité la wala sax yu am ci suñu tarikh walu tarikh. Euh, tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee xew-xew yu amoon ca daaru Mannaan ak euh, jàpp ki nga xam ne jàppoon nañ ko sëriñ bi foofee 1903 la woon incha allah ñu fas yéene ci dikk ngir waxtaanee xew-xew yooyu na mu demee woon euh, dalal nañu fii ay boroom xam-xam ñu kenn naatabliwul seen xam-xam Euh, ki nekk sama ndeyjoor monsieur Idrissa Cissé Ndiaye ñu ngi lay nuyu lu bëri et di la sant ci teewaay bi. yow nag professeur nga euh, jàngalekat nga woon macha allah daal di dem à la traité tey ji di gëstu nag lu bëri ci euh, jaar Seigne sëñ Touba Xaadimu Rasuul ki nekk suma càmmoñ itam Seigne Mouhamadou Lamine Diouf. Euh, mom kenn du ko kenn du ko présenter ti kenn sëñ Mouhamadou Lamine Diouf ñu lay nuyu di la ziar. jërëjëf sëñ Moussa ñu lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu nag euh, suñu doyen sëñ Idrissa Cissé Ndiaye. Mm-hmm. di ko sant bu baax ci teewaay. Mm-hmm. Euh, sëñ Mouhamadou Lamine Diouf nekk gëstukat ci ci IRM IRM nag buñ ko waxee moy institut bi nga xamante dafa dajalé ay kangam ñuy gëstu ci jaar-jaaru sëñ Touba rasoul Rasuul kon nak la ñuy jël kaddu gi rek suñu gan yi ñu wax rek. itam yi téléspectateurs yi euh, public bi fi teew wax dëgg yàlla ñoom itam di ay borom xam-xam macha allah teew ci euh, public bi di ànd ak ñun ci débat bi incha allah ñàkkul euh, su ko waxtu bi mayee dinañu leen may ñoom it ñu yëkkati kàddu sànni ko ci waxtaan bi nga xamante ni moom na ñuy amal ci jamono ji kon nag dañuy daal di dikk rek ci li nga xamante ni moom moo di suñ ne ñaareelu bi yoon bi ñu jëlee sëriñ bi am na kon faw Euh, yoon bu njëkk euh, yoon bu njëkk boobu euh, Serigne Idriss yoon bu njëkk boobu salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim barke Serigne Touba kon Serigne tubaa maanaam arrestation bi yoon wu njëkkoo moom mooy bu mu nekkee Mbàkke Baari te tubaab bi woote Ndar nga xam ne woo nañ ko ay yoon yoon yoon demul ba ak si 1895 ndax 1890 lay tàmbali woote. ba 1895 rek la door a am euh, ndigal ci boromam ngir war a jóg wuy ji leen ndar dagante boobu it nag tubaab bi sa yàlla xiir leen ndax bu ñu fàtte ne lépp rek yàlla mooy mooy tracé mu xiir leen ci ñoom itam ñu war koo jël si. yebal ay soldats yoo xam dañu ni euh, maanaam de gré ou de force maanaam ci teeyu ba kanam wala bu wala ci force nit mort ou vif. maanaam mënu indaale bakkan wala ñàkk indaale bakkan waaw loolu dafa dawe kon toit bi jóg di koy wut si fekk moom it samedi ji nga xam ne ji ci la jóg ci la jot euh, ndigal li ma nga jóg di dem ba mm-hmm. dajante ñoom jeewal jeewal la ànd ak ñoom mm-hmm. ñoom sax dañoo waxoon ne bu ñu ko arrêté nañu yeew ay loxoom ci gannaawam rog buum ci baatam mm-hmm. euh, di ko muy dox topp ci fas yi loolu la su toit bi santaane woon waaye yàlla def ba ñu dajee moom it bu ñu jàkkaarloo moom xam nañ ni kii moom du ku ñu jëflanteel ci loolu. Mhm. dañ dañ koo dañoo toog mu julli ay julleen def ay ñaanam temps bu jël temps ba mu doy. Mhm. jóg ànd ak ñoom dox ci fas ba Louga. Mhm. ba mu àggee luga nag fa la fa la fa la duggee saxaar gi saxaar bi yóbbu ko ndar. ba mu demee ndarit ma nga teew ci kanamu borom ndar ak conseil bi. Eh, le 5 septembre 1895. waaw tontu la mu tontu borom ndar ndax borom ndar moom. Eh, du Seck da ko ne rek moom sëñ bi Doudou Sekk da ko rek nuyul kilifa gi mooy borom ndar. mooy mun ko ñun de am nañu kilifa gudul yàlla te duñ jëlee liggéey ci gudul kooku wax jooju dong nag moom la tubaab bi wax ni mm-hmm. dañoo ñàkk teggin dafa wedd suñu mm-hmm. euh, suñu autorité suñu kilifteef mm-hmm. daal di koy jàpp interne ko au jardin des Saint-Louis foofa lañ ko jëkk a teg bañ ko tegee jardin des Saint ci bañ a guddal foofa sëriñ bi ngir wax ngir war a moom xam na lu ko taxoon a fu mu jëm foofa wax nañu ni Modou Ndiaye maa bay la woon ci mu taax ba mu ko assir du ko yaamay seere damay liggéey lee ma dem si jéeri te danaa la fekkee ndar ayaatu mhm. te na mu ko waxee wala maanaam dimension yonent wala wala nitu yàlla nag ñu ko xamal ci prophétie mhm. loolu mooy nattukaay bi xam ne ci la ñuy natt ni kii ndax nitu la dëgg dëgg dëgg mhm. loolu moo xoon am na dem na Gabon def na fa lu jege juróom-ñetti at dellu si ànd ndar ba fekkaat fa moom Modou Ndiaye maa bi waaw loolu euh, ubbi la woon rek ñu daal di dikk nag ci daar daaru mën naan euh, daaru mën naan ñu xam fan la nekk te it lan moo fa indi woon sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diouf. Euh, jërëjëf euh, sëñ Moussa ñuy sant sëñ Idriss euh, bu mm-hmm. baax ci ubbi gi mu ubbi. Mm-hmm. Daaru Mannaan ñu ngi nekk ci léegi na fi ñu doon daanaka dugg na ci Touba. waaye dëkk la boo xam ni boo weesoo Daaru Alimul Xabiir yi nga xamante ni bi sëñ Tuubaa sanc Tuubaa ginnaaw gi mu sanc daaru Xaalimul Xabiir sanc fi nga xamante ni mooy daaru Manaan jox maam Cerno ndigal mu sanc ko muy barab bi nga xam ne def na fa lu tollu juróom benn weer ginnaaw nga xamante ni jóge na ci géej gi li indi itam euh, ndajam daaru Manaan moom mooy ni ko sëñ Idrissa leerale bi ñu taxaw ci kanamu conseil privé bi mhm. dañu waxoon ci seen rapport ne nañ ko génnee réew mi yóbbu ko ci barab bu sori boo xam ne su fa demee li muy woote ak di ko jàngale mhm. du fa gis sax ku koy jàpp ba di ko gëm yalla suñu borom dogal juróom ñet at yu manki tutu mu dellu si mbir mi gëna a taal bi gëna a nit ñi gën ko top gën ko yaakar mu jëgé Dakar daari jaar Ndar jëgé fa mboolem fi mu jaar mo xam lu gëla Makka Samba babu wala wala wala ñaxal wala wala ciak mi dëkk yoy yëpp yi nga xamanteni manam jaar na fa keur ci Mata Mariama ba ni mu yeggee Mbàkke ba ak sanu ci ba daru salam fu mu jëm rek nit ñi dañuy dagg wuté di fofu loolu nak gëna titre tuba bi bi mu ñëw daru Manaan nak loolu gën yokk mbooloo mi ñu doon bañ mu topp ko yaakaar ko ba taxoon ñu ne dañ koy fekk si mbakk baar yi jàpp ko su mbooloo mi doon benn bi muy dem bi mu ëpp bi mu dellu see mat na fukk euh, sëñ euh, Idrissa Cissé euh, naan foofu nasaraan bi sos na sos yu bëri bëri bëri dañu ko sosoroon ni dafa bëggoon na def li ñuy wax jixaat ba xam mën nañu leeral tuuti sos yooyu waaw xam nga euh, sos boobu loo gis rek euh, dafa am fu mu dafa am euh, lu ko waral. waaw ndax lu ko sëriñ la waxee léegi. Mhm. xam nga sëriñ bi bi mu demee ba dellu si. dafa dafa boole ñaar dafa am ñaari ndombo tànk yu mu boole. Mhm. benn bu njëkk bi mooy ci moom la ñu mës xamee koo xam ne tubaab bi jóg na ci yow yóbbu la yow ci àll bi wër ak yow fure delloo si la nga dellu si ci moom la ñu mës a gisee loolu mhm. waaye mës a am lu jiitu ci moom la ñu koo xam ne kii bañ dafa nekkoon ci moom. ni mu nekkee woon ci yeneen nitu diine yi fi nekkoon ak ceddo yi fi noonu eh, te moom toit bi mooy ko dara ndax mboolem ñu doon bañ yëpp bu dee ci eh, eh, wàllu diine ji la muy muy muy Alaaji Umar Fuutiyu di Amadou Cheikhou Tidiane Mba di Mamadou Lamine Dramé di Fodé Kabara Doumbouya nga xam ne ci wàllu diine bu dee ci wàllu aada ji Lat Joor Alburi Njaay ñoom ñëpp fi mu ne amul kenn koo xam ni gannaaw bi tool bi sampoo ba samp taxawatee moom rek moom moo moo moo nekk bañkat bu ñëpp xam gan euh, euh, tool bi jàkkaarloog moom yóbbu ko delloosiwaat ko mun mu kon day nekk loolu nag jural ko euh, ñaari ndomb tànk yooyu na ci moom ñëpp nag daw wuti ko mboolem koo xam ne kii bañ a ngi woon sa xol te gisatoo foo wuti ko ba ñu demee na ñoom wuti ko loolu tool bi moom dafay daal di njortu ni loolu sax am na lu ciy dëgg mm. maanaam ñu ko wuti woon ñëpp ñoom yàlla yóbbu den ndax am na yoo xam ne dem nga ñu demoon ci moom dañoo jàpp rek ne bu ñu demee ci moom ba wër ko. waaw daañu mën a taxawaraat euh, euh, kuréelu majukaay goo xam ne gii. Mm-hmm. dana dana nekk seen point d'appui maanaam fu ñu sukkandiku ba mën a continuer seen bañ ga. Mm-hmm. waaye sëriñ bi moom ba mu ñëwee ca moom. dafa jël seen fetal ya jël la ca weñ jël jaasi yaag gobar yi jël la ca weñ mm-hmm. togglu ko tëgglu ko daf ko ay gopp ak ay ileer ak ay liggéeyu ay jumtuwaayu liggéey. wala dinañ. liggéey ak jaamu yàlla moo xew fii. waaw waaye leneen xew fii. leneen xew fii sëñ Mouhamadou Lamine Diouf am na ay bataaxal yoo xam ni ñoom nasaraan yi dañ ko doon weccoo ci seen biir bataaxal yooyu mu jukki ci rek Merlin ku ñuy wax Merlin ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril muy 903 mu ngi wax ci bataaxal boo xam ni daf ci jokkoo ak keneen ku naataangoom ni nañu bàyyi xel bu baax sëriñ bi ndax yàlla baal ñu ne dafa daje dafa dajale xaalis bëri. ngir waajal ay taalibe yoo xam ne dañuy dem song ji noon loolu moom ban dégg-dégg nañ ci mën a euh, ndax loolu boo xoolee sëñ musa waaw euh, tubaab yi euh, sëñ Idrissa wax na ko léegi mbooloo mi daf leen mës a tiital ndax dañoo gis ne ku mës a woote diine mhm. te am mbooloo rek woote nga jiyaat ñu gis ne mboolem ñi fi jaaroon mhm. ak seen mbooloo mbooloo mi sëñ bi moo ko ëpp ba noppi itam mu jaral leen loo xamante ni jarlu ko ñu jiitu woon ndax mhm. suñu jiite woon na ko sëñ bi ñu koy yóbbu bi mu jógee Mbàkke Baari Ndar laata mu fay dem Louga la wàcc mhm. Louga fa la jëlee saxaar soo ko dem Ndar Louga rek ci gaar ba mag ñi Louga yi dañ koo fekk ne ko suñu ngor ci boppam mayatu ñu di la seetaan tubaab bi di la yóbbu da ñuy jox ndigal mhm. ñu jàmmaale ak ñoom ba jeex takk ñu soog laa mën a yóbbu sëñ bi ne leen jaru kon moom su joxe woon ndigal nit ñi def loolu bi mu ñëwaatee nag daaru mën naa waaw Euh, seen xel dalul ba tey jàpp nañ ne ba tey ni jiyaar boobu dafa nekk ci moom moom sax mu leen koy leeral ne leen wa ma xaalukum inni ujaahidu saarixun mhm. inni di waji laa jalla ujaahidu li ñu wax ne damay jiyaar dëgg la waaye nag man sama jiyaat ngir jëmm yàlla rek moo tax man ni ko def mhm. inni ujaahidu bil hulul wa bi tuxaa habdan xadima wal muhimin shaahidu mhm. damay jiyaat ci xam ak ragal yàlla ngir jëmm yàlla suñu borom samay ngànnaay muy samay samay xalima ak samay daa ñooy samay kano ñooy samay fet sama tawhid ak sama tasawuf ak sama diine lislaam ñooy samay jaas yi samay xeet ji samay kano kon li ngeen yaakaar ne mooy ay jumtuwaay ay ngannaay yu ñuy jël man taxumaa jóg loolu nag teewul nag ba tey waaw taxul ñu am kóolute di jiiñ ko ni dafa denc ay ngannaay daaru man naan amaana sax dafa gas suul fa suul suul fa suul fa ngannaay yi looloo war loolu ñu ne dañuy ñëw wisit si kër ga mhm. ngir yaakaar ne dañu fekk ngannaay yi sëriñ eh, eh, eh, Idrissa si Ndiaye ci ci fànn boobu nga xam ni euh, ne nañu noon yi nee nañu nañu ko bàyyi xet bu baax ñàkkul nii am na ay ay ay ngànnaay yu mu denc ñu waajal ji xaar loolu lépp nekk ay sos waaw maanaam euh, lu bare ci euh, toit bi ñoom li ñu sukkandikoon mhm. ay tuuma la ak ay sos lu ci bare bare bii nag ba ñu am jortit ñoom am na ay nit yoo xam dañ leen a fay mhm. ñu doon dem di ñëw ci sëriñ bi di jébbalu dañ leen jox xaalis bu muy jébbaloo Euh, jox leen itam lu xaalis boo xam ne dañ koy fay ngir ñu mën ñu mën a nekk ci wetu sëñ bi. di mën di am ay renseignement di dégg li ñuy wax di leen mën di rapporter. du jégul bu wér. voilà waaw du ñoon du ñoon ay kii waaye loolu ñu wax ay ñu toog doon ay yëbbukat lu ñu ay espion la ñooñu amoon nañu. Mhm. am na sax ku ñu doon wax euh, Umar Nang wax nañu kooka tubaab bi ko tubaab bi joxee xaalis. Euh, sant ko mu dem jébalu ci sëriñ bi. kooku war sant Ndiang. waaw waaw ñun ñëpp ay caddu la ñu waaye sëñ Tuubaa. naa Fall lay sant. waaw ñun ñëpp moom ay caddu la ñu waaye génn. léegi wax nañ ne bi mu ñëwee. Uh-huh. ba mu ba sëriñ bi ne day jébalu. Mm-hmm. Euh, sëriñ bi ca saasa ko daal di xamal ni ko xam na du ko tax a jóg. Mm-hmm. waaye du mu wut moom nekkul fii. Mm-hmm. fii daal lu dul yàlla yonent bi nekku fi. moom dafa daal di xam bu wér ni sëriñ bi ko xamal wér na ko yow xam naa ne dañ la ko ngir yow yëdduñu mhm. waaye rek li nga fi yëddu si ak li nga fi wut ne amu fi amu fi kon nag expérience yooyu mhm. doon leen rendre compte am na it am ñu ngi koy cité ci rapport yi waaw ku demee na Anta Fara Biram Lo ku demee na Maam Abdou Lo ñooñu dañoo nekkoon ay agent actif yoo xam ni dañ doon liggéeyal toit bi mhm. di ko jox ay renseignement ak itam di xeex li nga xam ne lii mooy euh, tey ñu ngi am taxawaay yoo xam ni dafa demee na taxawaay Serigne Touba euh, ci Serigne bi yooyu yëpp nag dafa dafa nekkoon ay ay yu booloo euh, tubaab bi boole itam moom ci boppam comme ni ma ko waxee léegi muy def ay gëstu yu boppam. Mhm. ba léegi àgg ci conclusion maanaam ci tënk ni kii daal daf ñoo leeragul nañ waaye jaar lay fexe. Mhm. léegi nag preuve bi gën a wóor mooy nañ ko bett foofee mu ne. Mhm. Euh, fuuyee kër ga daan fi fekk gannaay ndax euh, gannaaw kuy préparé jaar moom ñu seet si que daan fi fekk gannaay. loolu nag moo waral bi ñu defee seen i seen i ay gëstoog mhm. seen nit ñu yebal rek seen euh, ay analyse ba àggal càmbar maanaam toogaayu Serigne Touba foofu lu ko waral conclusion ba ñu am mooy mhm. kii forcément jaar lay préparé mhm. kon nañu ko bett suñ ko bettee rek ba am preuve ci moom preuve bi mooy fekk fa ay gannaay su boobaa nag daañu ma dal ci koom daañu ko mën a arrêté. Mhm. te euh, euh, euh, daañu am fu ñu ko teg. dinañ am fu ñu ko teg. ñu am benn bataaxal ndax xam ngeen 1903. Mhm. mai 1903. Mhm. dafa am bataaxal bu sëriñ bi jot. ñu ni ko dañ la woo Thiès. di la nga war a ñëw kees te nag doo ñetti fan rek nañu la may. waaw woote boobu yemul foofu ndax sëriñ bi bi mu ba mu jotee bataaxal bi moom itam delloowaat na bataaxal bi tontu tontu commandant bu njaareem. ni ko man ci biir tontu bi. li ci yéeme mooy daf leen ni man eh, ci ci loxo sama borom laa nekk ci ndigalu sama borom laa nekk ba xam wax ju mel noonu bettu nasaraan waaw euh, dina leen bett du leen bett ndax wax ju mel noonu moo waraloon ci bureau Ndar ñu ne kii nañ ko génnee réew mi mm-hmm. ndax sëñ bi xam nga euh, tubaab bi mm-hmm. euh, Moussa bureau boobu boo xooloon composition bi xam naa du objet waxtaan wi sax waaye soo xooloon rek ñi ci teew. Mhm. maanaam kànja mi ci teew maanaam kuñ ci woo ak solonité bi nga xam ne moo fa ne ak soldaar yi ak raglu gi ak tiit gi moom boo defoon ndànk sax mun ngaa fàtte saw sant. waxuma laa nag nga tal dugg ci biir julli. Mhm. wone màggal yàlla suñu borom ba noppi wëlbatiku ne leen kan ma kan an an ana ku ma ci yéen. Mhm. ñii nag ne kii nag liñ doon wax ne teguñu fenn nag mhm. lii mooy preuve palpable bi daal di tàmbali boo ko waaye lañ ko wax lépp mooy moom li mu tënk moom ay waxam mooy seere ne mhm. yàlla suñu borom rek mooy kenn ndax xul xool laaw bi nga xamante ni moom la sëñ bi euh, tontuwaat mhm. juin 1903 bi ñu ko bindee bataaxa bi lettre bi mu tontuwaat sóorutu ixlaas mu ngi ci ba jeex tàkk ci correspondance bi nga xam ne moom la répondraat euh, ak gouverneur administrateur Alice mu jëm ci gouverneur général Merlin nga xam ne comme moom la mu waxoon ba ñu génnee ko maanaam soppeekuwul ci ay déclaration mhm. wane ne suñu borom rek moo rek lay déglu ndigalam te loolu moo indi woon réeroo bi ci Mbacke Bari mhm. ndax borom ndar bi sëñ Tuubaa yabalee maam Thierno daf ko ni moom dañu ko bind ay bataaxal mhm. woo ko ay yoon yoon dikkul mu ne ko benn bataaxal bu mës a ci moom bu koy woo mosu caa jot fekk na am na intermédiaire yu nekk ci diggante bi yoo xam ne buñ leen ne yónni leen bataaxal ñu sàkkal ko pexe ne tubaab yi yéen da ngeen di yàq seen kii xam ngeen ni kii àddina du yàgg bu mu wuysi leen ngir bëgg jaxase yi gën a tar ndax euh, décision yi ñu mën ko jël daaru mën naa ni bi ñu fa ñëwee ay yoon di ko soññ daf leen ni jotuguma ndigal la sama borom ngir wuy ci tubaab nag ñoom dañoo jàpp ne fi ñu toll ci réew mi ak doole yi ñu am ku ñu woon ne la balaa tàkkusaan na nga ñëw jàpp nañ midi fa la lay fekk waxuma laak ñuy woo koo xamante ni daleen naan dégg naa seen baraaxal tontu naa leen waaye jotuguma ndigal sama borom ngir wuy si mu di sëñ ini Cissé Ndiaye ci jamono jooju eh, seen jël lépp dellu ko borom bi ne man benn buur laa am moom laa xam moom moom moom moo ma sàkk moom moom moom ci diggalam laa nekk yónni ko tubaab bi moo wax dëgg yàlla tubaab bi da da dana ne waa man ñun ki ñu waxal fan la cest dire que bi mhm. eh, ku xam doole ak pexe. ak seen i mën-mën nga xam ne tey wax nañu ni ndax dafa am loo xam ne sëñ Tuubaa moo ko jëlee ci réew mi. waaw loolu man sama ma ko wax bu may xale. sama dafa woon bi sëñ bi dellu seegul ci géej gi bi mu nee ci géej gi te ñibbi seegul nit ku ñuul bu daa dox ci mbedd ba seen nit ku weex day day day dellu gannaaw ba ñag bi ko gën a jege. mu taxaw ca su fekkee solo na mbaxana da koy summi daf ko nii ci dënn bi sëgg di ko xool. ndax tubaab bi dañ daa yor crasse yu ñuy wax 4 50 su su soo leen doonee bu ñu la xoo boo leen xoolee dañ la koy dóor ci bët maanaam ci suuf nga xool CV ba mu romb ba toog ba romb la ba dem nga door a siggiwaat door a continuer saw yoon loolu nag Sëñ Tuubaa moo ko jëlee ci réew mi. waaw wax sax naan naan euh, euh, nit ku ñuul dafa see ba ba bañ na ko suñu lekk lekk lekk bu neex sax danaan ñamu tubaab la. waaw fekk ñamu tubaab amul ñamu la am. <laughs> yooyu am na kon sëriñ bi. waaw demee nag ci géej gi. jànkuwanteeg ñoom ñu téye ko rek juróom-ñetti at mu dellu si waat. Mm-hmm. nit ñi xam ne nooruñu ko dara. ci la ñu door a xam ne tubaab yi nekk duñu yàlla nit dong lañu. Mm-hmm. ci la ñu leen door a ñemee di xool ak di waxanteeg ñoom. Mm-hmm. loolu kon Sëriñ Tuubaa nit ñi ñun la ko rek maanaam du du du rek sénégalais du du rek africain waaye ku ñu ku ñu rek sëñ Tuubaa moo dagg sa sa sa mboobu jàmm mhm. ndax boobu see taw bi am considération ci nit ku ñu rek loolu mi ngi dalee dëgg dëgg dëgg am ci ci ci sëriñ Tuubaa euh, loolu ma leen tontu foofu it mhm. day wane rek li ñuy wax constance ci Tuubaa maanaam li nga xam ne moo na ci moom moom mhm. ca bu jëkk moo na ci moom ci ci mujj maanaam fi mu teg tànkam fa mu tegoon tànkam ba mu jógee fa la mu set ak tànk mos ko faa foo la mu set ak tànk mos ko faa te loolu boo xoolee it daanaka eh, lépp fi mu ne répétition la nañ ko woon bu njëkk ak la mu tontu woon nañ ko yóbbee woon noonu loolu moo dellu si waat noonu lañ ko wootaate ay tuuma itam noonu la amewaat lu ci nekk mu taxaw ca na mu ci taxaw woon ba lépp dellu si di neen ndam féete ci ci ci ci ci wetam toit bi lañ doon topp mobilisation boobu xam ne bu importance lu ma ñaari téeméeri soldat mhm. nga jël leen gannaaw ba nga leen joxee seen i seen i bal yi war a am mhm. nga tegaat ci kenn ku ne joxaat ko réserve cent cartouches daal di prévoir siège vingt jours mhm. ndax joobu dañuy dund ñaar fukki fan jàpp ne léegi xeex lay doon boo xam ne daal fa am ñaar fukki fan loolu rek di di yoo xam ni kenn nit su taxee ñu jël ko te kooka raful yënguwul wala wala sax yëg naa yéen yéen a ngi ñëw kon ñu war a xam ne sëñ moom xam naa dinañu dikk ci fànn boobu na mu gën a yaatoo mais dama bëgg ñu bii rek ñu dellu si incha allah. congub daaru mën naan ngir bëgg teg loxo ci sëriñ mag bi doon na loo xamante ni taarix bu Sénégal jàpp na ko mosuñoo gis bis boo xamante ne nguur tubaab yi jóg nañu dajale lu toll ci ay soldaar ay administrateur ak mbooloo mu takku ak jumtuwaay jëm ci dajeeg benn nit rek tuuma yi nga xam ne nag tuuma nañ ko sëriñ bi bi mu demee ba jiggi dayoo nguur nasaraan gi dañoo jàpp ne ñoom guerre dong la ñuy defi looloo waral ñu tàmbali yabal ay agent secret fi nga xamante ne mooy daaru mën naan ngir ñu gëstu leen lay xew ci kër ga ñaar fukki fan ci weeru mai 1903 am na ci bataaxal boo xamante ni gouverneur day xam ne ni am na ñu yónni ngir ñu rajo foofu sëriñ bi administrateur bi ñuy wax Alice am na bataaxal bu benn fan ci weeru jëmee ko ci ki nga xamante ne mooy gouverneur di ko xamal ne ko ki mu yebu di yebal ngir mu rajo ji su dikkee dina ko wax mbiri ni mu gën a toll loolu nag lépp jublu ci ngir xool ngànnaay ñi nekk ci daaru mën naan nan la demee ci loolu itam bokk na ci ñu waxoon ne seenu jublu mooy teg loxo sëriñ bi ak nu ñu ko mën a amee looloo waral ñu bind ko bataaxal fukki fan ci weeru juin 1903 di ko ci jéem a xooxatal ak tiital di ko xamal ne ko bépp yoon mu jëm Gàmbi jëm fi nga xamante ni itam mooy penkub Sénégal ak sowu daj nañ kàpp ay soldaar wër nañ ko loolu nag jublu gi mënees na ko gën a xam ci bataaxal bi nga xam ne administrateur bi ñuy wax Alice bind na ko benn fan ci weeru juin 1903 jëmale ko ci gouverneur général di ko xamal ne ko li ñu war a def daal mooy bu ñu songee dëkk bi saa boo xamante ne ay sox am na nañu fexe ba sëriñ bi moom bakkanam ñu jël ko su ko defee jaan ji dee dagar ji daal di dee ñu gis ne nag lépp loo xam ne kàddu la yoo xamante ne dañ jëfandikoo diiru weeru mai ba jëm du lenn lu nañ ko jàpp nañ ko génnee nañ ko tëj nañu jël bakkanam loolu waral juróom-benn fan ci weeru juin 1903 mu am lim bu takku boo xamante ni mësee su ko gis ci ay soldaar te bataaxal bi kii yilif mboolem l'armée bi ci Afrique occidentale française moo ko wax muy lu tolloog téeméer ak juróom fukk ci ay soldaar naka noonu itam juróom fukk ci ay espagnol muy ñeenti téeméer nit boole ci kenn ku ci ne ñu jox la ñaari téeméeri bal fukki fas ak ñaar ñu tak ngir officier yi ak ñëpp fanweeri gëléem ñu sëf bagage yi ngir japp ne ci xare bu mak liñu jëm lool nak gàcce lañ ci am ak torox tangé ndax bu ñu duggé ci gëru daaru mën naan bu wisu ko wisu bu ñak teggin ñu mboolem mu fa doon tuumaal gisuñ ci dara waye nak takuti gi ak mbolu mi yépp jëm ci sëriñ bi musul tee benn yoon lam waxon rek yëkkati l'islam ba mu ag fa mu wara ag àgg te di deret loolu moy sababu ñaareelu yoon bi nga xamante ni génne nañ ko ci réew mi fukki fan ak ñett ci weeru juin mu jëm gànnaar war faa def juróomi at. Euh, euh, sëñ Cissé Ndiaye lii ku ko seetaan sëñ Mouhamadou Lamine euh, da da yëg sa xol lu lu metti waaye lu solo ci yow mu mel ni tontu bi nga xam ne nasaraan yi moom la ñu tontu. Euh, tontu bi nga xam sëriñ bi euh, moom la tontu nasaraan yi neexu leen euh, ni mu doyloo borom bi kese neexu leen te li gën a naqadi ak li gën a naqadi nasaraan yi mooy ñuy gis bis bis bu set ñu ci bëri bëri bëri bi taalibe di ñëw di jébbalu ci sëriñ bi loolu itam doyu leen dañu ne nag léegi nag dañu ñëw jël sëriñ bi jàpp ko yóbbu ko moom indi lu rax li ñu dégg ci ay soldaar li kenn mu xam loolu mu toll lim boobu kenn ko xayma euh, foofu li ci am solo mooy jublu gi ci tubaab yi amoon dafa leer mm-hmm. nañ lan mu ci jublu woon liñ ci jublu woon mooy jël bakkanam tàgg ko moom ak nu ñu ko mën a defee ndax Alice lettre bi mu bind gouverneur général daf ko ne nañu fexe ba jaxasoo am mm-hmm. bu jaxasoo am na sox yi soqi mm-hmm. bu sox yi tàkki nañ ci profité jël bakkanam ndax jaan su dangar ji dootul gaañ kenn. te lettre boobu li ci gëna a doy waar mooy du lettre officielle. Hmm. lettre officielle bo xamanteni ni euh, Alice moko ko bind Merlin sen diggante. seen diggante la ndax da wax ngi lay bind de façon officielle. kon. du lo xamanteni hmm. lu jaar ci yoon administration la. kon ñom loolu mo do seen jub loolu nak du mën a kenn ndax Merlin moo doon directeur des affaires politiques 1895 bi ñu yóbbu sëñ bi dem la bu gouverneur général Alice itam. am na benn bataaxal bu mu bind euh, Tiwaawan nee na Merlin man damaa yéemu ci yàlla bi ma déggee nee nañ ma. Hmm. sëñ Touba dugg na ci saxaar gi jëm ndar kooku jàppoon naan dootu mën a dellu ci réew mi bis bi ñu ma nee saxaar gi la romb jëm ndar ci la ne. Hmm. nee na nee na xaw naa dee foofu ndax jàpp moo loolu mën naa ne kon kooku mbañeel gi mu bañ sëñ bi lu leer la. Hmm. espion yi mu yónni itam dafa leen wax ne leen. ñu ngi seetal sëñ bi ay waxtoom kañ lay ubbi kañ lay jàng alxuraan kañ lay julli kañ lay wax mbooloo mi waxtu yëpp wuti na lu muy def ba nga xam ni suñu jógoon ngir jàpp si ko dinañ xam wan waxtu la ñu jóg ngir mën koo jàpp kon loolu tamit lu leer la. waaw lu mel noonu nag soo ci boolee ñaar nit ñeenti junniy bal ay docteur yuy faj ak xeexu ñaar fukki fan kon yow xam nañ ni sa jublu mooy mën a tàggoog moom. Mm. ndax ñoom loolu rek moo doon seen itte ndax bu fekkoon mën nañ ko. duñ ko dellusiwaat ci réew mi mm. kon ñàkk mën loolu moo ñu dellusi ko Gabon waaye loolu du seen pexe bi ñu demee nag ba gis ne yëf yaa ngi ëpp loxo Alice bokk na ci correspondant dafa ne sëñ bi dañ ko war a jàpp delloowaat ko Congo su fekkee mënuñu koo delloowaat Congo nañ nañ jël bakkanam kon ñoom loolu lañ doon def mooy song si mm-hmm. koo xam ne jàpp nañ ne daal xare euh, réew ak réew rek moo moo ko mën a euh, euh, sëñ Idrissa Cissé Ndiaye dellu ñu tuuti ci nataalu takk der yooyu ak seen seen doole waaw li euh, loolu moom damay jëkk wax ni élément bi ñu war a dégg mhm. euh, élément bu tiis la mhm. ndax la muy fàttali bés booba tiisoon na mhm. waaye nag tey jii fierté la ci ñun bu ñu toogee téeméeri at ak fukk ak ñaar le treize juin ndax bis na tey la woon bu ñu toogee ba tey di toog fii di ko waxtaane sant yàlla nga xam ne sëñ bi moo am ndam ci ñoom loolu suñu fierté la Euh, ndax comme ni ko euh, sëñ Mouhamadou Lamine Diouf waxee léegi mhm. maanaam euh, mobilisation boobu ñu defoon mhm. li toog bi armada daanaka nga xam ni loolu xëy na réew réew rek moo mën a mobiliser mobilisation bu toll noonu ci ay ci ay soldat rek ci ay fas ak ay gëléem ak ay dund ak ay cartouche ak mhm. loolu lépp ngir nit ci benn nit lañu jëm boo xam ne bii mbooloo mu àndal barewul ndax ñu ngi koy xuppanaan ko sa dëgër bopp tax na suñu ñëwee ñu bare ci ci ci mbooloo yi lu wër daañu dee ak ñu seen yoon newul sax yow ci sa bopp it gëmuñu ne dañ ci mën a rëcc ndax euh, euh, soxee na muy demee gëmuñu ne dañ ci mën a dañ ci mën a rëcc kon li ñuy wax intimidation jëfe jëfandikoo nañ ko jëfandikoo nañu lépp lu ñu xam ci stratégie gënoon ko mën a xoqatal war ko mën a tiital mu dellu gannaaw ndax itam mhm. lépp da xam ne toit bi moom li ñu li ñu li bi bëggoon ci nit ñi moom la tubaab bi bëggoon ci nit ñi ba ci moom ci moom loolu ñu bëggoon ci moom mooy ñoom la ñuy wax soumission mooy jébbal sa bopp da nga sa bopp mm-hmm. lu ñu sant nga def lu ñu la tere nga baax euh, kon loolu tax mënuñoo mm-hmm. moom mënuñoo jubóog moom mooy li ñu bëggoon ci moom mooy euh, euh, maanaam safaanu la mu leen wax maanaam man jaamu yàlla laa boo mm-hmm. xam ni awma beneen kilifa gu yàlla te du ma nangu ndigal ci dul kilifa googee loolu mooy leen naqari te euh, maanaam lu jéggi jëmm sëñ bi ñoom dañoo jàppoon ne loolu su jàllee euh, maanaam sëñ bi dana ko wàll yeneen i Sénégal yu bare bare dana dema dema dem ba réew mi seen baat dana ko woyofal te loolu it sax mooy mooy li am ndax loolaa dem ba moo jur indépendance waaye ci processus bu gudd la boo xam ne moo lañ ko indi waaye fi mu ne bañ googu sëriñ bi demoon ca bureau borom ndam dellu bañaat ko euh, ca 1903 bañ googu rek maanaam tàkk taal boobu moo fayul mooy moo mooy tàkk di tàkk di tàkk ba moo jur indépendance. ba moo jur indépendance mais euh, sëñ Mouhamadou Lamine Diouf naataal bu raglu boobu ñu setaan léegi te misaal ko ndax lu amoon la euh, man la ma bëgg xam euh, ci ci ci waxtu boobu sëriñ bi fan la tolloon. waaw sëñ loolu lu am solo la ndax boobu fekk na sëñ mhm. Tuubaa nekk ci maanaam tamkiin. ak dal. Mhm. dal goo xam ne ñoom tubaab yi yéem na leen ndax bu ñu fàtte ne espion ñu yebal. Mhm. maanaam dañuy jàlloole. ñaar lañu bu kii ñëwee di rendre compte day fekk kële nekk fële dem waaye gisuñu ci sëñ bi benn jeexitu xam nañ ne xare baa ngi ñëw ndax boo leen jaw sàkkoor jéeri si Moussa Ka dara naan ba ñu yëggee ngay ba tàmbalee fetalu di wane ni ñëw nañu diggante Mbàkke ak li ko wër lépp nit ñi dañoo daw ngir ragal xare bi rapport administration coloniale mai 1903 dafa ni xayma nañ lu toll ci ñeenti téeméer wala juróomi téeméer li mu nit ñoo xamante ni daw ñu dem ngir ragal xare bi fekk leen fa jamono yooyu nag sëñ ci la benn xasida gu ñuy wax yaa rahmaan yaa rahim tab tabbile rabbi maa yasraawul asaan xat fa jaa bi jaay afdali man laay xat la jaa xamal nit ñi ne leen ku mu fekkoon nga toog mën ngaa tëdd ku mu fekkoon nga tëdd mën ngaa nelaw bu mu yàqal kenn benn itte xam ni mbooloo mu koy songu si ak nu ñu mën a toll mm-hmm. bu ñu ñëwee jàmm rek mooy xew nga xam ne kon na mu ko waxee woon it mm-hmm. noonu la demee ndax ñun ba ñu ñëwee mm-hmm. di dajj sàkket yi mm-hmm. di def jëfi ñàkk teggin yu doy waar di dugg ci kër yi di xool ba wër ba àggal am kersa gu rëy ndax li ñu ko tuumaal te gisuñu fa dara ñu am kerse génn di dem waaye na leen ko sëñ bi waxee woon jàmm rek moo jeexee xew ndax ñaar téeméeri nit yor ñeenti yi bal yor nangam ci ay <laughs> soldaar bu ñu songee ab dëkk

seddal leen ni kii nitu yàlla kese kese kese la te yàlla rek moo ko ñor loolu wax dëgg euh, yombul ci ci ci jamono ci jamono ci Buur Siin. Ah, loolu moom dama ko wax léegi ci français bi. waaw xam nga ci boppam ñoo am na yàlla melal euh, melal moo tax bu njëkk jënd ko di jaam yi dañ daan moytu sénégalais maanaam yeneen xeet yi rek dañ daa jënd. ndax da ngay jënd benn sénégalais jënd ko du jaam yi mhm. def ko ci gaal goo xam ne gi ñaari téeméeri jaama ca ne mhm. bu ñu demee ba ci biir géej gi sénégalais yi dana yeeñu ci des ba daañu fippu gaal bi yëpp du àgg dañuy xaru ci biir géej bi moo leen gënal ñu àgg mhm. kon sénégalais loolu ñuy wax ci suñu suñu devise naan on nous tue on ne nous déshonore pas dañ ñuy rey waaye dañu toroxal loolu mooy jikkooy sénégalais jikkooy sénégalais ko am jikkooy fond boo xam ne bii ngor moo ko lal jom ak fit wax dëgg loolu nag moo ne ci ci buur seen commando fen mu nekk koo xam ne kii moom rek moo ko moo ko ñenee exprimer ci kanam borom Ndar ndax ñooñu woon ñëpp ku ci jóg ci ay français yu dëgg nga doon wax naan sëriñ bi jiyaat lay fexe dina bool islam nangam ak nangam dañ ko war a sànq moom ba mu jógee dañ ko interprété dafa wax ni interprété bi lu mu wax nga wax ko mun waaw mun ko waxal ma ko ni ko moom mii moo jógee réewam ñëw ci réewu jàmbur ndax ay juróom-ñaari maam kenn xamul fi ñu dëkk te kii muy muy muy wax ay mbiram juróom-ñaari maam ci réew mi dañu dëkk moom mii moo moo nekkul ci yoon ndax moo bàyyi ay tooli maam ak kii maam ñëw dëkk coog jàppur ci ci biir tooli maamam daal koy xamal it ni ko kii muy wax ci moom nag man bokkuma ak moom diine waaye dem naa ba gis na muy dunde nit la koo xam ne kii yàlla nee na yonent bi nee téere bi nee na ci loolu la ne la muy sant ay waa këram itam ak djub la len sante ak tege ci yoon ak ngor man gisou fa leneen ba nga waxe ba jexal wax nañu ne tubaab bi ngepp toob bi ngi da ko wax ne ko dafa wax interpellé ne ko laajal ma ko ni ko mhm. ba moromam yëpp di jang toob mom fu mu nekkon interpellé bi ni ko kilifa mhm. kilifa gi neena ba sa moromu bur yëpp di jang toob yow far nga nekkon mhm. mu ne ko booba man ma ngi jang djub ba sama morom yëpp di jang toob bo ma ngi jang djub ngi jang djub waaw lolu moo tax Euh, euh, seere soosu nag ba mu ko defee pare yamu ca dafa daal di wut ay ay ay ay kàngam yu wér ak ay soldat ñu ñëw nag ba ñu nee décidé dañuy visiter si kër gi moom moo ñëw wër kër ga ngir bañ saay saay si ñi nga xam ne dañu toit bi dina la yebaloon euh, te booba am na ñu mën a dugg ci kër gi dugal fa ay fetal ak làq fa yoo xam ne bu ñëwee dañaan ñu ngi fi loolu moo aar kër ga ba buñ ko ñëwee visite fekkuñu fa dara te ni ko sëñ la mi waxee léegi bu ñu wax boobu su fekkoon visite dañu kër gi fekk fa loola moom dañu koy jàppee ak complice maanaam ku ànd ak sëñ bi ca la mu doon def te doon na ca ñàkk itam manta buur siiram waaye nag dëgg rek taxoon Euh, ak wax li li nga xam noonu la gis moo taxoon mu def seere soose mu def seere soose nag di seere su rafet soo xam ne yaakaar daan du ko réccu kon nag euh, mbokki téléspectateurs yi dañuy daal di yem fii rek euh, di jéggalu di xam naa incha allah dinañ ci dikkaat ci beneen jamono ci ni mu gën a yaatoo kenn mënul wax mbiru Serigne Touba macha allah ba mu jeex tàkk géej la te bis bu nekk dafay am lu ñuy jël taataan ko ci suñu biir dënd sëñ Mouhamadou Lamine Diouf. waaw xanaa di sant rek bu baax ci. ni nga ko waxee te wane ne sëñ Tuubaa ay taxawaay démb ak tey lislaam rek la ma sa yëkkati te la mu waxante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy yëkkatiwaat lislaam ba mu yegg fa mu yeggoon te retour deret diirub li muy liggéey loolu rek la ñu mos gis mu def ko ba bisub tey itam ak njabootam ci loolu la ñu euh, sëñ euh, Idrissa Cissé ba leen di sant di sax yéen ñi nga xam itam yéen ci plateau bu mel nii jox ñu occasion ñu wax ci Serigne Touba euh, suñu suñu suñ luñ ci xam ak itam suñu yéene di ko bokk ak mbokki taalibe yëpp rek di euh, ndax ñun ñëpp ñu xam li ñu am mooy lan ak nan lañu ko war a téye ndax li ñu am moo gën moo ci man day gisuma lu ko gën fenn kon nag euh, ci jotaay yu mel nii lu mën di waxtaane di mën ndax nit ki ma ko wax sànq sëñ xam nga nit ki dana bëgg dara mhm. waaye su ko xamul du xam nu mu koy téye mhm. euh, na mu ca war a dëgëree du du ko xam mhm. kon débat yu mel nii rek lu am solo la sam dañ leen gërëm la leen ci invitation bi di saa su ne di feddali suñu kóllëre ak yéen mm-hmm. di pare nañu rek saa su ngeen ñu wooyee ci waxtaan yu mel ni daan ci ñëw mm-hmm. lañ ci xam daañu ko ci wax ànd koog yéen sant lañ leen gërëm leen jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi di gërëm ak di sant euh, itam public bi bëggoon nañu leen jox nag wax dëgg kàddu waaye waxtu bi fi mu toll moo jot sëñ Touba yàlla nañ ko yàlla fay yiw bàyyil ñu ko euh, yokk xéwalam ay xéwalam gëneelam ak mbetteem ci àjjanam tey lislaam yëpp ñoo koy tiitaroo ti eh, wax nag nag yooyu yëpp xew na waaye l'islam am na ndam di leen dig daje yéen téléspectateurs yi ci grand débat ci beneen jamono jërëjëf Serigne Mourtala Sey mi réalisé émission bi ak ñi jàpp ci liggéey bi ñëpp ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf